ay homme d'affaires yoo xam ne dañ leen jàpp noot leen tënk leen ci benn protocole boo xam ne kenn appliqué wu ko ministre Abdou Karim na ba mu fi ñëwee yàggul de mais li mu ñu ko si ay dégâts ak ay jafe-jafe ñun yére yi ba ñu juddoo ba léegi bañ tàmbalee liggéey ferraille ak tey musuñu ko dund kon Abdou Karim na dañuy wax mu dégagé poste bi ñu ko jox mérité wu ko antanu ko ñun ferrailleurs yi protocole bi dinañ ko xotti tareet ndax protocole bi juruñu lu dul ay ngànte te damay am lu may leeralaat muy président de bi li mu waxoon Abdou Karim Fofana na jël dossier bi jox ko premier ministre muy Amadou Ba Abdou Karim Fofana jëfewu ko ndax bu ko jëfee woon mbir mi du yegg si fii kon Amadou Ba tey ñi ngi lay demandé nga jël dossier ferrailleurs yi nga joyanti ko ndax jox nañu protocole boo xam ne tripartie ñoo ko signé muy ñetti pàcc yu bokkul benn pàcc kese moo ko siy jëfee booboog léegi ñi ngi ñuy noot si industrie yi ba pare jëm ci aluminium bi ak batterie bi ne dañ koy tëj kon ñii lobby bi nekk seen ginnaaw lobby bi lañu bugg ñu démasté ko lobby bu bon a bon a bon lañu Abdou Karim andil teg ko suñu kanam te fi mu jëm ak ñun duñ ko seetaan kon nag président de la république tey ndaw yi ñoo jàkkaarloog yow di ko won ne suñu diggante ak yow dafa ratax bann mais Abdou Karim mi ngi koy xajamal kon moom président bu mu seetaan Amadou Ba nag ni jël ay responsabilités ndax mi ngi laaj réew mi ñun tey réew mi kenn mënu ko laaj di ñu si seppi dañ si am lu ñuy représenté te ku ñu joxul sunu droit xam nañ ko fi mu toll nii daal gàtt sa gàtt sa bu ma sëkk la ñuy woo Abdou Karim na nañu abal poste bi poste bi na daf ko antanul te tojul fenn. moom nañu abal soxla wuñ toog ak Abdou Karim foofu Mamadou Amadou Ba lañ soxla Amadou Ba soxla mu régler situation ferrailleurs yi te protocole bi ñun ñëpp xam nañ ne protocole bi tekkiwul dara ndax bañ ko signe ak tey kenn appliqué wu ko kon tey li ñuy ñaan mooy président de la république na ñëw dimbali dimbali ferraille ndax li mu li mu digle woon palais ba wax ko Assane Bichri nekkoon na Amadou jël dossier bi tey Amadou Ba enquête defu ko kenn mënul taxaw ne enquête nañ kon protocole bi tey mën naa ne lépp lu ñuy dund ci jafe-jafe moo ñu ko teg